actuellement ci làmb ñu ngi dégg ay jafe-jafe yoo xamante ne làmb am na ça fait parce que bërki démb am na jàngat bu ma defoon ci làmb nga jox avance Kewel jox avance fas yéene ko boole ak ak Jokkel bu Fatick mu jur polémique diggante sa diggante ak assan Ndiaye lan nga mën a leeral Sénégalais yi ak amateuru làmb yi nga xamante ne dañ leen di safoo di leen seet. jëli gannaaw bi ñu ne ñu ngi suivre yëpp ci wasaare. fépp waaye mën a nekk ci àdduna ñu ngi lay ziar bu baax a baax di profité ci occasion bi di baalu ñëpp àq di réew mi jàmm di ko ñaanal waa bitim réew yëpp doomu Sénégal bi nekk rek ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax di nuyu ñu ne si diaspora bi tamit di nuyu sama papa Père Ba Ba bu baax a a baax a baax di comme li nga wax polémique ah man day wax dëgg yàlla polémique bu ma man daal def naa li ma war a def ah, avant koor gi di ñëw ci lu baax laa bu ñu ñëwee ci weeru koor nag dama koy yokk waaw pële gi mooma làmb ñëpp xam nañ ñu muy taxawee da ngay wax ak mbër wax ak stafam boo waxee ñoom ba d'accord li si des mooy joxe avance wax naa mbër mi wax naa stafam d'accord nañ ci adversaire bi d'accord ci date bi d'accord ci spécial bu ma leen di bëreloo ñu wax ma prix ma fekk si leen ñu laaj ma avance ma yóbbu jox leen si ak ñoom ay kayit yaakaar naa foofu bu polémique amee rek jógewul ci jamaïcain man daal li ma jàpp ne ba tey ah la si août kéwél Jokal dinañ bëreel Jamaïcain production loolu laa jàpp ndax loolu loolu moo tënk suñu diggante man ak ñoom joxuma leen xaalis pour ñu feccal ma joxuma leen xaalis pour jox leen sama sànc na nañ ma tabaxal joxuma leen xaalis pour ñaan lu ci ñoom bi ma leen jox joxuma leen xaalis pour ñu ñawal ma yëre ndax ci korité lañ jëm man ngaa jox nit sa xaalis di ko ñawloo dama leen jox xaalis ñu bëre ñu nangul ma ko kon jàpp naa ne ba fi may waxee yow ni dañ may bëre waaw ba ba may gisee leneen lu koy dindi. léegi boo xëyee jékki-jékki gis ci affiche yi ñu ne tëgg nañ Assane tëgg na diggante Kéwal ak Tidiane Faye moment boobu lan moo ci nekk actuellement. waaw moment boobu noonu leneen nekku ci ndax xam tax. Euh, nañ ko teg ci yoon rek. joxe avance joxaat avance am na fi. ba ba Gaston. Boy Niang ak Tapha Tine taxaw na. mu ñëw yëkkati xaalisam tëgg Balla Gaye Boy Niang waaye terewul. Boy Niang dafa dem bëree ji ba pare dem bëreel ko ku mën a def loolu kay amu ci problème ndax mbëri mën ñu jël cinq avance bu six avance waaye mbir mi nañ ko teg si yoon injustice kay mooy nga jël ba pare ne kaay yow mi ma njëkkoon a jox kaay jël sa xaalis loolu daal nangu waaye comme tëgg naa keneen bu ñëwee ba xam ne mbër mi mu ngi ci contrat mu doy ko mu jox ko xaalisam loolu problème amu ci loolu laa jàpp. manager bi bi ma ko woowee nee na woo nañ la pour delloo sa xaalis mais da ngaa a jël xaalis. waa jili woo nañ ma pour delloo ma sama xaalis comme woo nañ ma pour delloo ma sama xaalis ak àdduna bi yëpp xam nañ ne ñoom jot nañ xaalis waaw delloo xaalis lan moo ko waral si yan ngay delloo xaalis dama bëgg nga dem dégluwaat dewos yaa introsé man sax lii dama yoon waxaat waaye occasion la pour yow ci lii ma jàngal la ci nga am tamit loo ci xam dama bëgg booy teg élément bi maa la ko ñaan nag di ko lancé sa technicien solennellement na dagg fi manager bi doon waxee mu dugal ko ci sama élément bi may wax li may wax nii. waaw Saliou dañu la woon ngir bëgg am ay leeral yoo xamante ni bëggoon nañu ko am ci diggante euh, kéwél mi nga xamante ni yow yaay manager am ñu dégg ni signé na contrat diggante moom jam production moo war a bëreeg Jokkel. ñu bëgg ko jàpp le quatorze août ñu déggaat ne kéwél boobu jël na avance Assane Ndiaye war a bëreeg Tidiane Faye bu Langsar yan leeral nga ñu ci mën a jox ba mu jur ñaari coow ci diggante ñaari promoteur yooyu. jërëjëf euh, Ba Djili <coughs> euh, jàmm euh, yàgg nañ ci làmb maak moom. Cheikh mm-hmm. Anta mi nga xam ne mooy màggu kéwél tamit yàgg nañoo liggéey maak moom mm-hmm. yàlla dafa def Cheikh Anta nekku fi. Mm-hmm. moom mi ngi Touba ak Kewel nekkuñu Dakar. jam mm-hmm. bi nga xamante ni soxla na combat bi. Mm-hmm. moom moom wóowu ma Cheikh Anta woo. Mm-hmm. yaa ngi dégg mu waxaale ak Cheikh Anta ba bare. mu ne ko léegi kan laa avance mu ne ko Saliou ba nga may joxal avance parce que man maa ngi Touba. mu woo ma ne ma Zal ma ne ko ah mu ne ma waxaale na see Cheikh ba bare. ma mm-hmm. ne ko ci ñaata mu ne waxaat nañ nangam ba pare ma ne ko léegi lu mu la wax mu ne ma jox la avance. ma mm-hmm. ne ko kañ ngay ñëw mu ne ma subaa daa ñëw mu ne ma fan laa la fekk ma ne atelier fi ngay liggéey. Mm-hmm. mu fekk ma jox ma cinq cent mille. defal ma décharge ma signé. moo seexante na ko euh, jamaïcain ngi di génn. nee na euh, euh, jox na ma jox na ma cinq cent mille defal na ma décharge ba génn na. mu ne ma la bëggoon a sax parce que booy bi dama ko wax jokkeel mu ne ma mënut a bëre ak moom. booy bi moo wax loolu. moom Cheikh moom wax loolu man boo kii ba léegi waxuñu ko. waaw. Mm-hmm. Cheikh Anta moo waxee na ma desaar ba na ma cinq cent mm-hmm. a dem. xaalis mm-hmm. baa ngi ci man fan koy defal. dama koy def fii wala orange ma ne. a ne noonu da ma koy téyel parce que dama ko dugal sama léegi ma ma ne ko mi jox na ma xaalis yi mu a ma booy bi nee na bëriwul ak euh, kii ni nga ko waxatee Jokal mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ma ne ko nu mu mën a demee noonu man ma ne mu ne moom maa a sax mais damaa jàppoon ma ne ko jox pare waaye. Mm-hmm. ci biir loolu ma euh, ne waa jam na ko jam de affaire cat dugg na ko mu ma lan la ma ne ko seen entraîneur booy bi noonu bëriwul ak Jokal mu ma en tout cas signé na ma pare. ma ne ko léegi seen entraîneur bi naa la xaalis mu ne ma noonu xaalis téye ko man ci naa pare même pas quatre heures de temps. dama mm-hmm. ko jox euh, dix sept heures dix euh, seize heures dix sept heures moom dix huit heures Anta waxoo mm-hmm. daal noonu la mais Saliou est-ce que yéen bi ngay bi ngay signé contrat Jam Production est-ce que tey euh, du da ngeen amoon beneen proposition ba tax ngeen ngeen ngeen ngeen génn ci boobu dugaat ci beneen ndax li nga wax ci Cheikh Anta Cheikh Anta bu demee ba d'accord. ba jam di la indil avance kon am na accord bi li tax Cheikh Anta moom jëlul téléphone am woo jam production wax ko ni combat boobu kat yàqu na yow mi nga xam ni comme yaay en tant que manager yow mi nga xam ni dañ laa woo rek ne mbër mee ngi ñëw euh, promoteur bee ngi ñëw signeel nga dem signé ji. waaw man naa am ne dañoo am ci leen liñ nekkoon parce que su ma juumul. Mm-hmm. parce promoteur bi nga xam ne moom moo taxaw beneen combat bi Assane Ndiaye. Mm-hmm. moom mu woon na ma nee mm-hmm. Keba Kante daf koo woo. Mm-hmm. ne ko damaa bëgg combat Jokal ak ak ak kii ni ñu koy waxati ak euh, Kéwel. Mm-hmm. ngi dégg Assane Ndiaye Assane Ndiaye ne ko waaw ñu waxtaan ba jubóo. ci li ma mm-hmm. wax. ñu waxtaan ba après euh, Cheikh kii Kanté dem ëllëg ko dem jox Jamaïcain combat bi. Jamaïcain taxawal ko. xam naa seen problème yooyu lañ nekk mais man moom xam nga benn am. Saliou waxaale naa ak moom jubóo xaalis baa ngi nii euh, Cheikh Anta bëreetuma ak moom. loolu laa ci am. Hmm. léegi waaw léegi euh, bu jam bu jam nanguwul jël xaalis bi te signé nga contrat bi ba pare lan moo leen ci mën a fekk. loolu ma ci mën a fekk su doon CNG mën nga am nga droit taxaw 24 heures yoo xam ne su la neexee nga dellu avance dara lu dikk. Hmm. li ci li ci garaawoon kay mooy ñu lekk xaalisam wala mu manqué wala ñu ne am xaalis suba ma xaalisam dara manqué wu ci mu ngi nii sama hmm. waaw loo ci mën a fekk dara. xaalisam dërëm manqué wu ci te ma matul sax euh, trois heures de temps boo ko dello xaalis bi su fanaan sox ñu mën a wax. Mm-hmm. xaalis bi fanaan na ci moom. dama ko jox dix sept heures euh, seize heures dix sept heures dix huit heures moo woo mm-hmm. waaw fekk ma damaa jàpp bi ma koy jox noonu après ma pare woo Cheikh Anta ma julli ba pare woo Cheikh Anta waxoo loolu. Mm-hmm. parce que am na ay images yu ñu gis bi ngay bi bi jàpp di indi contrat bi yaa ngi ci sa biir place. sama biir place même sama adversaire contrat am ci man la ko man la ko bàyyeel ba léegi jotagu ko sax. Mhm. waaw jëlu ko sama adversaire jëlu contrat bi. Mhm. waaw. jërëjëf maa lay jaajëfal bu baax ci leeral yi am solo yow jërëjëf waaw. manager bi doo am la woowee dana la bi ma jamay kee joxe xaalis bi trois heures de temps après woo naa ko ne ko mu ñëw jël sa xaalisam du loolu la la wax man maa ngi ko jox xaalis bi quinze heures. manager bi mu ngi ma woo minuit bi ma woowee waxoon ma ñëwal jël sa xaalis bi de daf na ma yóbbul naa xaalis bi ñu jaayi kewel ñi jaay ji nee na xamul mbër moomu du jëlagum xaalis bi maa ngi naxanteeg moom ba suba fii suba bu nangoo am naa yaakaar na nangu lii la ma wax dama woor te man su ma wooree kat weeru koor comme da nga dañ nekk fukki weer ak benn ngay def léeg-léeg naqari sunu borom bu weer wii ñëwee weeru sell wii nga xam ne boo ci defee lu baax ñu yokkal la ko boo ci defee lu bon tam ñu yokkal la ko def ci lu baax weeru koor moom du ci wax lu dëgg du ma ci tooñ sunu borom dama koy jaamu def lu neex yàlla wallaahi lancim ak koor gi ñu ne nii la demee moom ci biir waxam nee na la bi ma ko joxee xaalis woo na agent mbër mi ci benn appel waxul ma coupé wawaat ko de ci benn appel bi nee na woo na agent mbër mi agent mbër mi ne ko yónnee ma xaalis agent mbër mi waxaat na ko ne ko dugalal ma ko banque agent mbër mi waxaat na ko dellool jamaïcain xaalis bi si benn appel noonu nan mën a nekk. na ko sax ni ko adversaire mbër mi day ñëw Touba buy ñëw Touba joxaale ko mu indaale. joxaale ko mu indi ko. mais ku la wax ci benn appel. waaw non non moom dane ma jotee xaalis bi li mu wax dafa leer bi ma jotee xaalis xam nga moom xaalis bi moomu ko su ko jotee rek day def effort yu mu joxee lam la ca mbër ma moom lam ca moom lay jël nee na bi mu joxee xaalis bi woo na agent mbër mi agent mbër mi ne ko joxal ma xaalis bi euh, mbër mi agent mbër mi wax na ko joxal ma dinaa la jox xaw ma compte nga dugal ci xaalis bi agent mbër mi wax na ko dellool Jamaïcain xaalis bi si benn appel si benn appel dama bëgg nga dem jàngataat wax jooju dégluwaat fi ma lay waxee ne point yi te nag ji li li arab di wax naan maa waral kalim li ci gannaa li ci gannaaw wax dafa jar bi bàyyi xel nit ki su waxee war nga jël ay waxam jàngat teg ndax kii li muy wax lu logique la wala kii lu mu wax du lu logique man loolu rek moom mu ci xaw a doy waar euh, def kaa benn appel waa ji bi mu ne la doxal mbër mi xaalis bi yow moom moo xaalis lu tax joxoo ko ko bi mu ne la dugalal ma xaalis bi banque euh, yow moom moo xaalis bi lu tax joxoo ko bu fekkee yooyu jiitu delloo jamaïcain bu fekkee wax yooyu moo jiitu delloo jamaïcain ba mu la waxee joxal mbër mi xaalis da nga ko war a jox muy benn su la waxee dugalal ma banque da nga war a dugal ndax moomoo ko su fekkee doxal jamaïcain bi moo jiitu woowal jamaïcain directement jox ko dugalal ma banque ak yónnee ma amu fa place su fekkee yónnee ma yi moo jiitu doxal ma jamaïcain ah na nit ñi def foofu njàngal. yow lan nga bëgg léegi fi mu toll nii actuellement lan nga ci làmb ji parce que président Bira yaakaar naa moo leen boole njaboote yéen ñëpp woo na leen wala ñenn ci ñi nga xamante ne bokk nañ ci làmb woo nañ leen ak lan lañ leen wax. président Bira woowuñu man maa fa demal sama bopp. bi cow li amee li ma njëkk a def mooy président ménagère yi laa njëkk a saisir ndax ki ma ko seqal ménagère la muy benn ma dem directement ba ci moom woo ko téléphone expliqué ko kaa bi yëpp nu demee mu ne ma loolu jaadul maa ngi woo ménagère bi ma pare demaat jëlaat sama tànk dem ba CNC wan leen kon wan président contrat yi mu liir lépp na ma lii wax ma lan ma cay wax na ma xaaral ma ne ko nag balaa maa dem fenn foo xam ne waru ma fa dem ci làmb ñuy yéeg ci yoon di wàcc te nag yow yaa jiita làmb ji ngay kilifa dañuy ñëw ba ci yow wax la nu mbir mi demee waaw balaa ëllëg ngay taxaw ne yëguma ko woon comme dañ la dénk làmb làmb su amee problème yu mel nii war nga ci mën a dox xool ku nekkul ci dëgg nga raisonné ko nekku ku ci dëgg ba CNG ñoom tout le temps dañuy wax ne combat bu ñu régulariser wul ci ñoom seen yoon nekku ci te nag combat mënul taxaw directement mbër mi dafa war a am licence yaa ngi dégg boo xasee monté grand combat da ngay am sa neuf combat yëpp dara dem dugal. mais jëm sax man damay ñëw ci feneen mooy gars yi nee nañ combat euh, avance boo ko joxee soixante douze heures wala vingt quatre heures am mbër mi am na droit delloo avance lan moo tax bu la delloo avance doo ko jël yow tamit. loolu dafa jot nit ñi leeral si loolu amut. Ah. loolu dëgg. avance boo ko joxee vingt quatre heures mbër mi am na droit delloo ko loolu fan la am. texte CNC. moo wax loolu ci règlement CNC te booy delloo avance boobu. da nga koy teg ci ay conditions yaa ngi dégg du mbër mi gis na leneen lu ëpp loolu wala gis na beneen xaalis damay dem delloo ji ma teg ci CNC waxul loolu waaye contrat man bi ma am ak përma ménagère bi ak mbër mi une minute sax nekku ci xam nga lan moo ci nekk soo fexee sax ba ma signé loola jëli te joxuma la xaalis ma signé loola te laalagoo xaalis su ma gëmul yàlla dëgg doo laal xaalis ndax da ngaa signé ne jot nga nangam ci man yaa ngi dégg. boo xasee technique bi si signé si sama contrat nga tënk une minute amu ci trente secondes amu ci suma ma bougé wuloon mètre comme signé nga sama contrat yaa engagé wu ne da ngay da nga may bëreel te ci contrat bi yaa engagé wu ne boo lekkoon xaalisu fukki promoteur doo bëgg bëreel kenn te bëreeloo ma si contrat bi yaa engagé wu ne fépp fooy dem man maa lay jox sama ndigal nga dem fa bu la nit waree photo sax bu ma la joxul sama ndigal waroo faa dem du rajo du télévision yow yaa engagé wu si ñu loolu wu ma la. kon nag kooku buy xalaat lekkat xaalis su keneen di xalaat nan day bëreel kooku ba vraiment bëreel ah. am na solo am na solo ndogu jot na. Adama dañ leen dem ndogu ji ndax ku woor suba